mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan eh, nag ñi ngi fii ci cosaan ci face à bi war ci Reug Reug ak guy gi actuellement nag Reug Reug moo di ko góob ñu bëgg koo laaj euh, waaj bis bi ah, ak ni nga ñëwee waaye li njëkk a daaneel mooy ñetti abdu yi Reug ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di wax auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli sonante bi di ñaanal sama papa ak sama tante yàlla na yàlla xaare àjjana firdawsi di ñaan senegal yàlla na fi jàmm yàgg lool te wér. du nuyu waa presse bi maa ngi nuyu ñëpp daal bu mu limee damay jum. ñetti abdu yi. ñetti abdu yi. xanaa ñu bari ñu koy door gis. Ah, man ci profité du nuyu buur euh, buur ndax Abo Fall Abo Fall moom moo fi jaar kon maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko wax nag waaw def na mbir. tey nga war a jàkkaarloo guy gi tey. Hmm. muy jàkkaarloo xam ne àddina nga koy xaar tey nan nga waajee. ndax daanaka daa mel ne làmb ji tey bis nga xorow bis lu ne. waaw mais loolu du dara làmb la rek maa ngi nuyu guy gi passage di ko wax làmbu la defuñu lu làmb. làmb la bu jeexee rek na suñu grand frère la dañ koy jox cër bi moom mais jour géew ba cër du fa am. waaw dinañ jàmmaarloo dina neex dina yëngu waaw. guy gi di mbër mu naqaree bëreel noo waajee si diggante moom ndax gis nañ ni na ñoo xam ne songoon nañ guy gi am ay jafe tey jii te xam nga li may wax. waaw mais nañ ba bis ba rek xam nga ñun moom mënuñoo wax jiitu jiitu loo xam ne tey jii yàlla suñu borom na mu nga n'est-ce pas voilà ñun moom lu ñu mënti def rek danañ soobee suñu borom. yàlla nañu yàlla may fekkee tal ba bis ba yàlla suñu borom may ma wér gu yaram may ko wér gu yaram. waaw mais mbër tey gis nañu nga dugg géejawaay def euh, lu doy war nga jëlaat mbëru géejawaay muy guy gi. mu nekk mbër moo xamante ni bëri na coow loolu yow nga bëri coow loolu mais gars yi ni xeex bi si yow dafa xaw a des lay wax ñi xamante ni ñu ngi lay seetaan. waaw mais bëre dóor nañu wax lépp ngay jàng xëy na sama xeex nañ gisagul mais yàlla baax na li si kanam rawuli bët incha mais booba léegi si loo nekk ndax gëj nañ la gis nga yëngal làmb mais tey jii gis nañu da nga ñëw ñett may ñett abdu bu saf-saf say mbokk yi sant ak ñi xamante ni ñooy am si làmb jamono jun toll muy violence bi dafa doy war mhm. dama bëgg nga lancer benn message bu am solo parce que tey fii amoon na ay mbëri fi ñëwoon def signature mhm. ngeen ñëw ànd ak dal mu mhm. nekk lu am solo supporters yi ngeen war wax ak ñoom sensibiliser leen tey loo wax supporters nga xamante ni mooy non violence bi waaw ñun nag ñun ay noobul ak séeréer du ñu yàq làmb je me expliqué ñun non violence dañuy woote ñun suñuy supporter mun leen xamee ñu sàncalul rafet xeeñ parfum bu neex ñu ñëw supporter seen mbër yàlla suñ borom mooy ñu dem ñu dem ñibbi ñun loolu nañu xam quoi waaw. guy gi ngeen dalay wax ji ba bis ba mu defal la bagage. waaw yàlla baax na yàlla baax na damay bàyyi wax jeeg du ma bàyyi wax jeeg loolu yëpp amul benn sens nañ bàyyi ba bis ba incha allah. dañu gis ne dugg nga géejawaay quatre fois bëre fa ak Clinton bëre fa ak Balla Gaye Junior ki nga xamante mooy euh, nu mu tamit bëre fa nga xamante bi nii mooy mooy Balla Gaye Junior di combat bu metti ñoo ñu nga doon bëreel ak guy gi lan mooy différence bi. waaw ay mbër lañ rek mbër moom mbër ngay mos doon. làmboo la làmb moo ñu boole. bu bëree bëri benn 30 minutes la wala benn. vingt minutes wala benn cinq minutes loolu moo ñu booleeg moom yaa may dégg kon nag làmb la ñun moom dinañ def li ñu war a def lépp ànd ak suñuy mbokk ànd ak ñun war a àndal bis ba ñëw yàlla suñu borom may ñu ndam.

man ak bu mu fëggee mën na maa jël combat une semaine ndax damay entraîné ndax xale laa dama nekk sama yoon te man dëkk moo may yaakaar yaa may dégg voilà kon nag lu may def day am ful ak fayda. waaw mais xam nga mooy li ma wax sànq rek bëre dóor la mën nañ lépp xëj na yàlla suñ borom moo moo waneegul lañ muy bëre bi rek mais man nañu xeex mën nañu bëre waaw buñ nax gars yi guy gi boo leen xoolee mënta xeex xeex moom mënu ci dara nañ waxante dëgg waaw xeex moom mënu ko lu mu dee dee maa ko dàq xeex maa ko dàq xeex si xeex normal quoi ma xeex normal xeex normal mhm. maa ko dàq xeex waaw mais bu dee xeexu géew xeexu géew tey man waaw mais man soxlawuma ay nekk fi di xeex samay supporter li ñu gën a yomb laa leen defal jàpp daan dem ñibbi si kattanu suñu borom. a mën nañ xaar zongale ci combat bi. lépp lépp lay am. jàkkum dina bëre ba naaw. jàkkum bi. <laughs> dina dina dina bëre ba naaw. non loolu yow. duñ ko koy yéene loolu mukk yàlla tere. day fekk ma daan ko ba nelaw yi suñu kër muy doog xam daan naa ko mais loolu lay rassurer say supporters ma gëj na si làmb waaw man moom li ma di leen oo si bis bi le 20 février maa ngi woo képp kuy bëgg Reug maa ngi lay woo si combat bi nga ñëw sanc lu neex xeeñ parfum bu neex supporter sa supporter sa mbës mbër yàlla suñu borom may ñu dem ñu dem ñibbi. waaw yaat ma li ma jaaxal léegi rek macha allah mi ngi wax mais mi ngi ñàq. loolu mooy wane kon maa ngi liggéey jarta wax tey jii ndax mën nañ xaar ci yow combat bu gaawal wala bu yàgg. moom mooy choisir bu bëggee. bu bëggee bu bëggee deux minutes si moom la bu bëggee trente minutes si moom la lu mu bëgg rek si moom la moom mooy choisir mooy choisir. non liggéey la waaw liggéey la mbër yooyu dañuy liggéey mbër yooyu ñom ñoo yor seen bu ñu yoree seen seen maanaam nu ma la ko mën a expliquer bu ñu yoree seen i kër dañuy liggéey c'est le travail n'est-ce pas te la sport la yoon lañu dem liggéey. non man du ma bëre ak mbëru Sénégal de. MMA non non. non bokk ma ak ñoom. Ah mm, bokk ma ñoom. bokkuñu sax lu ñuy xeex man ak ñoom. mais wax noonu naan loolu bëriwul ñu ko waaw ñoom ñoom la wax ak ku nekk ak sa xalaat mais ñun moom ànd nañ ñun war a àndal te yàggatul quoi. bien am na. lépp lépp ku ko tardé tàdd nga lu rëy waaw. ñetti la ñetti yi la. ñetti abdi nga ñetti mbaari. ok ok jaajëf. sargal yaay su fanaan